yaa xayra yàlla euh, seer na nag seer na moom prix yi dëgg yàlla seer na nag yooyu kàddu jaaykatu ndawal ak ginaar yi ci marché okas bu Touba ñoo ko yëkkati koor di weer woo xam ne askan wi dañ cee baaxoo di soppi cin mu mel ne ne ren jii doonu lu yomb ci borom kër yi ndax ni marché bi bindoo ñoom jaaykat yi dellu si ci seeraayu ndawal gi. prix bi essence mi ngi jar trois mille cinq cent man moom cent place boog trois mille cinq laay jaayee xaw ma ñeneen waaye man trois mille cinq laay jaayee ndawal ndax foofu la na ndax jaay naa réel baax na moom jar na ko ndax liñ koy jëndee liñ ci teg bëriwul parce que ay 200 francs lañ ci teg rek instant yi nii waaw. donc fépp la seer nag instant bi parce que da ngay dem dara yor sa xaaj di jënd sax mais boo jëndee nag boo defaree pour jaay da ngay perte mais loolu lép rek dañ koy sant yàlla baax baax ginnaaw ñu ngi koy fekkee rek waaw yàlla na ko gën a fekkee rek waaw yàlla baax na. du si ñun ndax fan koy jëndee fa la seere waaw ndax tey bu lu daan jëndee mil ñoo ñu ko fa jaayee parce que ay 2500 wala 2750. waaw waaw du suñ coobare ci fi ñu koy jëndale waaw waaye luñ ci man pour mu gën a wàññeeku rek daanu ko def ndax lépp ñun ñunu neen la daal yëf yi benn la daal mu gëj a def def na ko ren mooy seer seer gi nag du si ñun fan koy jëndale sa ni jamono ñu demee moo tax mu seer sant yi toll nii bagage seer na mais alhamdulilah nit ñi moom sëñ Fallou moo ngi def xéewal yaa ngi ñëw kii yaa ngi ñëw naes di jënd njaayam ginaar yi moom comme ça niñ ko amee rek lañ koy xéewalee taalibe yi waaw xaw naa manqué xaw naa zéro waaye nag dinañ ci def xéewal waaw ndax ñun ñëpp kenn ku ne da nga koy xool ni sa bopp rek soo xoolee sa bopp rek dina mën a war a oyof daal lu ci man pour mu oyof daal bu soobee yàlla ñoo ngi koy ñoo ngi ko ciy sàkku waaw pour taalibe yi yëpp mën cee jariñu ci weeru koor waaw ñu ngi ñaan daal yal na ko yàlla yombal ci kàttanu yàlla ak baaxu sëriñ bi. ni ndawal séeréer noonu itam la ndugg sëriñ baare bi di jaaykat ci marché Ocass duñu xamle ne ren jii ndugum moom wàññeekuwul xanaa dafa a seer. bagage wax dëgg yàlla moom wàññeeku moom mën na defu ko moom xanaa gën a seer kii la ñu wax wàññeeku amu ci moom xanaa suukar sax tane na moom wàññeeku na xanaa euh, 1500 mais bu dee yeneen moom dafa yokk quoi ay yëpp dafa yokk suukar rek moo wàññeeku dafa yokk. ay yeneen bagage yi dafa yokk boisson yeeg si yeeg yëpp dafa yokk soble pomme yooyu sax tane na tuuti moom. wax yàlla dafa seer moom na trop si client yi eh, ñu jënd jaay dafa métti si ñun mille. weer neuf mille ko jëndee weer neuf mille. Mhm. dee meew. bu dee dix mille vingt cinq kilos waaw. kon daal prix bi wàññi ko wul seer moom trop. koor. di weeru xéewal wante njëg yi ñuy gis ci marché bi wute na ak loolu bu baax ba tax commerçant yi ak client yi ñépp marché di sàkku ci kilifa yi ñu na a bàyyi xel askan wi. day mel ni xéwlu Serigne Touba da ci wàcc prix yi na gépp cher waaye teewul dinañ am xéwal gu ñu defee ci gën a nu yut njaboot gi ndax njaboot gi rek moo tax ñor ah moom daal ñuy wax nañ xool commerçant yi nañ wàññi prix yi ndax xam nga ne borom kër bu dugg ci marché di dugg loolu laal ñu yokk loolu metti na te lépp lañ yokk ne ndawal gi yokk na diw gi yokk na lépp dama dégg man te état yi ginnaaw ñu ne état yi wàññi na wàññi man moo ma jaaxal da bu nee wàññi état bi wàññi na ko ba ñëpp dégg ne soxna yi nga ne ci waañu da ndax luñ sama kalaat gi luñ joxe yaakaar ne joxe na lu rëy fekk ñoom moom mais ñi ngi ñëw mais day métti moom dañuy jàmbar rek war na yàlla ku waroon ñett benn nga jën wala ñaar waaw daal di li xalis nga jëm koo négocier rek waaw Hillel